سهر وفي سفر وماني على ماني ngeen jëf euh, mbokku téléspectateur télévision Mafaation Al Bichri euh, noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ñaan ci barke Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar euh, sa borom yàggal ko fi te ko lool ci cérémonie officielle Màggalug Touba 2016 ci njiital. Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar waaye eh, jëwriñam ji nga xam ni moom la àndal di liggéey liggéey Serigne Touba bi muy Serigne Mountakha moom Cheikh Madal Bachir yegg si na léegi waaye nag mi ngi feggoo ak ki nga xamee ne nii. mooy seenu donga mooy kan jàmbaar ji nga xamante ne bi mooy sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadir ñoom ñëpp ñu ànd liggéey bi ah di liggéey bu mucc ayib bu kawe boo xam ne mboolem ku dib neex na la ah, kon mbokk yi dañuy bàyyi ngeen xool liggéey bi fi xew ak sëriñ lahu bi anwaa'i albadii barra an alxaaliqu min siwaahu wa qaadali man laa yura charwaahu kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillahi bihi sakamtu tursi an al akdaari wal mafaasidi salaamati min jaalibin li faasidi akramani allahu bi dikrihi wa ma li ixtaarahu wa li yaqaadal أقوم بها بي الله الكرام الغرى وببقائي النبي السرى هبات ذي الجلال والإكرام لي خلدت مرغب الكرام إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست الشك أبدا في كوني جرى البديع عجبا للكون إن الذي من الإله حزت غاب عن الكون وفيه فزت دلني الله على الله بلا تغرر وعمري تقبلا خابت قلاتي مع الحساد من زمني حثت بلا كساد وقاني الباقي به الصبورا تجارة لديه لن تبورا لم ينحني ما باع عني الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بلا انتهاء ثمني من كان لي وليصفى زمني جاء بلسان العرب بلا نهاية وطابت قربي نزع الإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير التربة نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما ثبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفعي هداني الله والزح زح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين هداني الله والزح زح اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العبد الشاكر sayyidina wa mawlana muhammadin alqaa'il afala akunu abdan shakura wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu an alabdi alxadim alsabir alshakir alqaa'il ya rabbi in actaytani fa shukru wa in manacta fa ridan wa sabru walqaa'il xaana chukrul ilahi xaana fi turaabi baada jamili sabri fi igtiraabi ayuha alxaflu alkarim qad yargabu alinsanu fi jalbi manfaa wa taxqiqi maslaha fa yatawajjahu ila rabbihi mutadarrica la in aataytana saalixan lanakunanna min alshaakirin walakinahu baada naylil marghub yunkirul jamila wa yaxoonul amaana fa layri dadani ila jinaanihi wa safa daydani wa yaquul laka shukuri rabbi min muharrami li xatmi dil xijjati xatmi lxurumi wa anta al aan ayuha cheikhu alxalifa tumassiluhu bi qadaai illahi wa qadari taamuru bi amri wa tanha bi nahyi nasalullaha an yaxfadak wa yaraak lima fihi salaahu albilaadi walibaad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na nga fi yàgg te mu ànd ak wér Cheikh Sidil Muxtaar kilifa gu dal Cheikh Sidil Muxtaar kilifa gu jàppu njàmburam Cheikh Seydil Muxtaar kilifa goo xam ne bu jëfee ñëpp yéemu te ay waxam néew Cheikh Seydil Muxtaar kilifa goo xam ne bu sañoon ummatu Muhammad alayhi salaatu wasalaam bépp benn rek lañu doon bis bi bu mu dëgmalee danga ngaa yëkkatee sa kàddu woo ñëpp waaye ñëpp wuyu nañu sa woote ndax ñi mën a màggal si màggal si nañu ñi munta màggal siitam màggal nañu kilifay diini yi ñoo ci jiitu te danaa ci dikk association islamique mi ñoo ci jiitu gouvernement gouvernement du Sénégal ki ki ci yàlla jiital bëkki dem mu la fi jóge yabalaat na mbooloo ñi ngi nii toog suñu joxee kàddu gi jëwriñ ji yore biir réew mi dana la limal mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal opposition bi kenn desul ak nag parlament bi kenn desul ak jaambur yi nga xam ne féetewuñ fenn kenn desul ak nag koor diplomatique bi nga xam ne ñooy ñi teewal seeni réew fii ci senegal ak nag gan ñu bari yu bàyyi ko bitim réew ak nag sa bokki bopp yi muy njabootuk Cheikhul Khadim ak kilifay yoon wi ak taalibe yi ak soppe yi délégation bi bi mu egsee sa taalibe Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi moo nekkoon ci seen wet dalal leen ànd ak ñoom ba ba ñu toog ba dal te sëriñ bi Cheikh Abdoul Ahad def na ci màggal gi loo xam ne du ko wax waaye lim def ci bis bi xaw naa defar bis bi loolu dañ la koy seereel bi nga wootee na kilifa yi wuy si dama koy lim bu gaaw a gaaw a gaaw ndax wax yu dafa jege wante damay tàmbalee ci alxadratul malikiya fii Tiwaawan sëriñ Cheikh Ahmad Atijani digal na rakkam ne ko na yabal ndaw mu yabal sëriñ moor si mu ànd ak mbooloo njaasaan xalifa ba yabal na cheikh bu xalifa kunta mu ànd ak mbooloo sa doom sëriñ Moustapha si bu al mustarshidun wala mustarshidaat yabal na mbooloo alxaaji Malick Mbay mi ngi nii toog moo leen jiite al usra al omariya waa kër Cheikh Omar yabal nañu mbooloo Cheikh Tidiane Tall jiite ko ak Cheikh Nourou ak Cheikh Omar Medina Baye mbooloo teew na ci njiitul Cheikh Aboubacar Niass fo mi fa mi maam Ahmadou Baro Njegéen def nañ nañu daan def sëriñ daam Njegéen fanweeri at muy teew ci màggal gi Thiénaba sa mbokk ma yabal na mbooloo sëriñ Gora Seck moo ko jiite laayeen sa mbokk ma yabal na mbooloo Sidna Isa doomam moo ko jiite lew na alhaaji Ibrahim Niass yabal na mbooloo al imam Mouhamad Arabi Niass moo ko jiite ndeer naar Mouhamad Jullit Kunta ànd ak mbooloo jaamal Cheikh Ousmane Cissé ànd ak mbooloo waa kër sëriñ Abbas Sall jéeri bax ànd ak mbooloo ahlullahi ndànd Cheikh Moustapha Euh, Cheikh Moustapha ak Baye Thierno Dramé ànd ak mbooloo ànd wutal jàmm Oustaz Ibrahim Ndiaye ànd ak mbooloo askaay Serigne Ndongo Maar ak Serigne Mouhamadou Mbay ànd ak mbooloo mbooloom imaam yi nekk Pikine Alhaaji Malick Ñang jiite mbooloo këri diine yi sa doomu Serigne Habibu Saaxu ànd ak mbooloo al imaam Ismaël Dem di sa doom di sa xarit di boroom xam-xam naka jekk day teew ci bis bi diigaan sëriñ ba yabal na Cheikh Ibrahima Sow mu ànd ak mbooloo waa kër maam ma Samba Thiam al Mourchid Ahmad ay Iyaan Thiam ànd na ak mbooloo famille buur sin kumbandoo fen Diouf yabal nañ mbooloo sëriñ Alxaaji juuf moo ko jiite famille Jimbira yabal nañu mbooloo Cheikh Talibo yooyu Jimbira moo ko jiite famille Alxaaji Njaase Mbay ca Thiès Pape Xasan Mbay moo ànd ak mbooloo ñëw njabootuk Alxaaji Tiijaan Ñang Mame Balla Niang ma nga ne toog ànd ak mbooloo njabootuk alxaaji Mbàkke Tànjang yebal nañ mbooloo Serigne Mbàkke Tànjang jiite ko waa kër alxaaji Omar Ndaw ci Daaru Salaam yebal nañ mbooloo Mouhamad alxaaji Mouhamadul Maahi Ndaw jiite ko waa kër alxaaji Ceerno Kanji ci Njaarim yebal nañ mbooloo alxaaji Kanji moo ko jiite waa kër almaami Maba Jaxu Ba mi ñëpp xam yabal nañ waa kër al imaamul Mahdi ca Wuro Mahdi yebal nañ mbooloo alfahim Ba moo ko jiite waa kër maam xaali Amar Fall mbooloo fa bàyyi ko Serigne Boubacar Fall moo ko jiite waa kër almaami Maba Joxu Ba mbooloo moo fa bàyyi ko Serigne Abdul Wahab Ba moo ko jiite waa kër boroom xam-xam ba alhaaji Mouhamadou Fatha Sakho mbooloo fa bawoo Cheikh Ibrahim Sakho jiite ko waa kër Cheikh Mouhamad Nabi Guèye alhaaji Mouhamadou Kamara jiite na mbooloo waa kër Cheikh Muntaka Kala Dramé mbooloo moo fa bàyyi ko Serigne Mansour taal ak sëriñ Aliou Dramé waa kër Cheikh Omar Sall alxaaj Malick jiite jiite Malick Diop jiite na mbooloo fulaadu ca Ndakaar Ceerno Ahmad Seydi ànd naag mbooloo fulaadu ca Kabindu Serigne Mouhamadou Lamine Cissé ànd naag mbooloo grand Serigne de Dakar alxaaji Sangoone Diagne moo ko fi teewal Gedd Ardo Sidi Mouhamad Umul Bah moo jiite mbooloo ma Oman euh, appel international Serigne Mbacke Fall ak Serigne Talla Omar Lay ànd ak mbooloo daaray Kokke Cheikh Ahmad Mukhtar Lo ànd ak mbooloo Kédougou Serigne Yoro Mar ànd ak mbooloo Koyli Alpha Serigne Moustapha Ba ànd ak mbooloo Lubundu sëriñ Saadou Abi Sow ànd ak mbooloo Paal Chérif Ibrahim Ngom ànd ak mbooloo Ngouraan sëriñ Makhtar Seck ànd ak mbooloo Nimzat Cheikh Touradou Haydar ànd ak mbooloo Rumde Thierno Ousmane Mouhamad Aya ma nga ne toog ànd ak mbooloo waa kër Thierno Mouhamad si ca Gédé ca Fuuta Thierno Abou si moo jiite mbooloo mi mbooloo mi nga xam ne ay imaam lañ ak ay waaraatekat te Cheikh Ibrahim Ndiaye jiite ko teew nañ fi mbooloo mi mi nga xam dañoo bennoo liggéey liggéey lislaam Cheikh Thioub jiite ko ànd ak mbooloo jamiyatul ihsaan wal islah Serigne Mouhamadou Diouf jiite ko ànd ak mbooloo waa kër tafsir Mor Ndiour Serigne Mouhamad njuur ànd ak mbooloo waa kër Alhaaji Omar Dramé Omar Serigne Omar Dramé ànd ak mbooloo waa piir sëriñ Maodo euh, ak sëriñ Mansour Cissé di say rakk ànd ak mbooloo waa Ibadu Rahman Serigne Mbacke Babou ànd ak mbooloo Morolan Serigne Jibril Combaan ànd ak mbooloo waa kër Cheikh Ahmad Khourech euh, Serigne Ismail Ba ànd ak mbooloo waa Bamba Modi Alhaji Omar Sall ànd ak mbooloo Ndank Ali Makhtar Kunta ànd ak mbooloo Guyet Chérif Moustapha Haydar ànd ak mbooloo euh, mbooloo mii nga xam ne tam ay boroomi xam-xam di ay imam imam Ahmad daam Ndiaye jiite ko euh, di sa doom ànd ak mbooloo Pete Warak Alhaji Njibi Ndiaye ànd ak mbooloo alwaxda sëriñ Mouhamadou Bara ànd ak mbooloo mbalaxe sëriñ Aliou Dia léegi la nuyu mu ànd ak mbooloo waa mbo mbooloo mi mbooloo mi nga xam ne dañuy liggéey lislaam te jaaree ko ci kër diine yi te sëñ maam Cheikh Mbacke moom sëñ mu Awa ba jiite ko ànd ak sëñ Babacar Cissé ak mbooloo waa taslima Casamance alxaaj Khalifa Diaby ànd ak mbooloo mbokki naari nag sëriñ bi damay taxaw foofu tuuti ndax président bu Mauritanie dafa def lu rëy ci màggal gi def na ci loo xam ne xaw naa mën a defar màggal gi yebal tam protocole am ñu teew ci màggal gi yebal tam ambassadeur mu teew ci màggal gi loolu sëñ bi moomu ko gën a xam ñu koy seereel mbooloom bi waa kër Cheikh Hamallah ca Mali ren lañ fi jëkk a teew doomi xalifa bu mu Cheikh Aminullah teew na fi waa kër Zawiya Chazaliya Rosso Cheikh Baba Tall ànd ak mbooloo waa kër Cheikh Mouhamad Ibn Ahmad Misk ànd ak mbooloo Zawiyetu Chourafa Tigmatin ànd ak mbooloo Zawiyetu Chourafa Garak ànd ak mbooloo Zawiyetu Chourafa Tungeen ànd ak mbooloo Zawiyetu Cheikh Mouhamad Fadl Wulmamin ànd ak mboolo al Mujama al Madani bi Rosso ànd ak mbooloo Zawiyetu Sarsara ànd ak mbooloo Maatu Mawlana yabal nañ mbooloo Al Hasaniyin yabal nañ mbooloo Cheikh Hamid Wulu Ishaq yabal na mbooloo Al Hajiyin ànd ak mbooloo Cheikh Mouhamadul Yadaali ànd ak mbooloo buuru Itraza di buur bu bees ànd ak mbooloo Cheikh Maul Aynayni njabootam teew nañu Zawir Ahlil Hasan wul Hamadi moom la maamam njëkk sëñ bi njëkk a jox wird ànd ak mbooloo al Fariq Ahmad Bamba wul Baaye ànd ak mbooloo al Wazir Madine Ba ànd ak mbooloo ambassadeur moo ko jiite Rwanda ambassadeur am teew na Indonésie ambassadeur am teew na Mauritanie ambassadeur teew na charge d'affaires ci ambassade bu Maroc teew na consul bu Tchad ci Dakar teew na consul bu ci Dakar teew na rabitatul alam al islami muy ligue mondial musulman euh, teew na jamii daawal islami bu Libi teew nañu mu des nag sëriñ Mor Gaye bu Nayobe yabal na mbooloo euh, teew na yabal na euh, ànd ak mbooloo Gàmbi nag sëriñ bi Pape Demba Diop mala fa nekkal yor fa sa kàddu ànd na ak mbooloo tey jëf ci liggéey bi ngay liggéeyal lislaam jëf yu rëy mook mbooloo ma mu àndal Cheikh Mouhamad Tahir Ka bàyyi ko Gàmbi Imam Ibrahim Kanté bàyyi ko Gàmbi ànd ak mbooloo a Cheikh Qaribullah kaabara mi ngi nit dend ak yow al xalifatul am li tariq alqadiriya fi Nigeria teew na sëriñ bi ànd ak mbooloo te yàgg naa teew fii ci Sénégal ministre bu tudd Modibo Kedi Nigeria la bàyyi ko teew na turc yabal nañ docteur Mouhamad Adjan Al Husseini amid kulliyati Dar es Salaam bi Turkiya teew na ci bis bi ànd ak mbooloo Angleterre imam Babacar Ahmad teew na euh, docteur Ibrahim Congaan teew na Soudan al oustaz Hatim Abbas ma nga ne toog euh, teew na Côte d'Ivoire oustaz Bamba Moussa teew na euh, ak oustaz Idriss Koné ak soxna suñuy wax mm, Trazéré Célestine mu nekk député ca assemblée nationale bu Côte d'Ivoire Irak ayatullah sayid imadul hakim mumassil al marjiiya al kubra fi najafi al ashraf ma nga ne toog teewal fi iraq wa nasalullah an mm, yauda assalaamu ila hada al balad ashaqiq ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo fi teew ñu leen doon tënk kon sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg te yàlla na nga wér te sémbu yi nga sémbal lislaam yàlla na nga ko àggale